Fini le stress. Que vous soyez jeune fonctionnaire, entrepreneur ou même immigré, le groupe Mac Building vous aide à réaliser vos rêves. Vous souhaitez acquérir un terrain, concevoir votre plan architectural, construire votre maison, trouver une équipe ouvrière spécialisée, équiper votre maison ou bureau, trouver des matériaux de construction, décorer votre intérieur ou même gérer les démarches administratives. Le groupe Mac est là pour vous accompagner la concrétisation de votre projet. Vous estimez ne pas avoir les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

te it ngeen yelloo li gën lobbu maam jaaru du jóg si di indi lu bees di xoolit fu gën a sori alhamdulillahi alladi agnaani wa a'azzani français d'Otokobay. lu sax ci xolu doomu aadama ba foo ko tudd xol yëpp ay feex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 tout ñi ngi nekk marché Tilène rue 19 angle 18 téléphone 77 462 41 41 ou le 77 681 57 38 ou 77 924 45 20 dama ni neexul ba neexul waaye or bi jég ji bëgg noo boutique Zamzam rek la alhamdulillahi alladi bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu allahumma laka alhamdu hatta tarda wa laka alhamdu ida radita wa laka alhamdu baada rida gannaaw buñ sante buur yàlla tabaraka wa taala ñu ngi julli ci sang bu tedd bi di ar rasulul mustapha salawaatu rabbi wasalaamuhu aley ali imran tv delsuwaat nañu ànd ak mbokk yi nga xamante ni ñu ngi ñuy topp ci émission bi fii jaar di ak at kiir ñuy fàttalanteeg mbokk yi lenn ci suñu mbiru diine ndax fàttali dafa baax fàttali daf di loo xamante ni njëriñ ba fa nekk yàlla mi ñu ko gën a xam te mu xam luy ñoŋal suñu dundin bi ba tax na baaxee na ko suñu yonent bi sallallahu alayhi wa ci téere bu mag bi di alquranul karim ci suratu zariyat mbokk yi bu ñu demee xool borom bi tabaraka wa mu ngi baaxee yonent bi ne ko wa dhakkir fa inna dikra tanfau lmuminin del fàttali yow sama ndaw bi del fàttali yow sama yonent bi ndax fàttali dina njëriñ ki nga xamante ne da di ki gëm yàlla ba tax na tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa ñu fas yéene ànd ak yéen lenn li nga xamante ne da di lu am njëriñ ci suñu diine bi da di li nga xamante ne jullit bi bu ci bàyyee xel dundam dina mucc waaye dina muccal nit ñi ci anam bi nga xamante ne noonu la nekkee kon du ñu def dara lu dul ñu dugg ci alquranul karim téere bi nga xamante ne yàlla suñu borom tabaraka wa taala moo ñu ko wàcceel ngir suñu dund bi mën a ñoŋ ngir suñu dundin bi mën a tegu ci yoon waaye mu andil ñu professeur bi nga xamante ne mudarris bi nga xamante ne muallim bi nga xamante ne amul dara lu mu xam ci lu baax lu dul jéggee nañu ko waaye amul dara lu mu xam ci li nga xamante ne dinañu soril ci yërmande yàlla lu dul muy tandekuloo nañu ko waaw kooku mooy yonent bi alayhi afdalu salaatu wa azka taslima yonent boobu moom la yàlla wàccee alquranul karim yàlla di ko ne waxal sama jaam yi ñuy wax lu baax ñuy wax lu baax waaye ñuy wax ci nit ñi lu baax ndax làmmiñ ba nga xamante ne mooy appareil yama leen yi yënkeewal xéewala leen ko appareil boobu dafa am la ko war a tax jóg appareil boobu dafa am la ko war a tax yëkkati ba tax na avertissement bi di suuratul xaaf am na avertissement ba yàlla avertir doomu aadama bi suñu professeur bu mag bi jàngal ñu ko di suñu yenentu bi sallallahu alayhi wa mbokk yi cheikh buñ demee xool yonent bi mu ngi ñuy baaxee ci téere bu mag bi yàlla tabaraka wa taala di ko ne ma yalfadu min qawlin illa ladayhi raqibun atid amul dara amul dara luy yëkkati ko ci làmmiñu doomu aadama ci kàddu lu dut dinañ ko enregistré raqib ak atid dinañ ko enregistré ne yow yaa wax lii waaw bu fekkee ne yow doomu aadama bi cheikh dañuy enregistré lépp li ngay wax ci sa gémmiñ sa làmmiñ lépp li muy yëkkati ko mu di ko wax bu dee xam nga ne alxuraan dala ne amul dara la doomu aadama bi di yëkkatiku ci làmmiñam lu dul dinañ ko enregistré ci registre bu mag bi war ngaa xam la ngay wax ba tax na loolu la alquran jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa feelu ko ci xadis ne ñu amsik alayka lisaanak ngalla nang ma tiyil sa làmmiñ nang ma gardeel sa làmmiñ yow jullit bi yow doomu aadama rawatina yow jullit bi yonent bi nee na garde sa làmmiñ sàmm ko wali yaxsaak bikka baytik na sa dëkkuwaay doy la ci yaatuwaay sa dëkkuwaay na la doy ci yaatuwaay waaw wabki ala xati atik na nga sax di jooy say éeréel ya nga nekkee maanaam ci gàttal cheikh yonent bi day tegtal ne yow doomu aadama bi na nga occuper sa bopp na nga occuper sa bopp na la sa bopp doy waar na la sa bopp doy xalaat na la sa bopp doy problème xam nga nga xamante ni problème mi doy na ko kooku di luñ bët problème mu ñeneen ba tax na loolu la yonent bi salaa sallam feeloo aaya bi boo doyloo sa bopp ci li nga xamante ne moom nga nekkee sa bopp doy la ci problème nga jooy say bàkkaar sa dëkkuwaay doy la ci yaatuwaay nga téye sa làmmiñ kenn du ne yaa ko fi wax kenn du ne moo fi ñëwoon kenn du ne moo fi defoon ndax demoo fen sa bopp doy na la sa dëkkuwaay yaatu na la sa làmmiñ téye nga ko ana ku lay timmal demoo waxoo jëfu ana kan mooy am sañ-sañ teg la tuuma amul ba tax na alquran jàngal nañu linimel ni mel bi sallallahu alayhi wa won ñu nuñ koy defee ndax alquran dafa junj ne ñu amul benn kàddu bi ko ci gémmiñu doomu aadama bi lu dul ñaari malayka yi enregistré nañ ko ci sa registre bu mag bi raqib ak atiid dinañ ko enregistré ci sa registre bu mag bi bés penc ñu wan la ko yaa fi wax lii ngal la waay durant li ngay dund fexeel ngay génnee kaddu bu jiw kaddu buy defar penc ci sa gémmiñ dee ko bind dee ko signé waaw del signé lu yiw del bind lu yiw del commentaire ci lu yiw del wax lu yiw bés penc ñu tegal la ko ñu ne la sa durant li nga dund yépp li nga doon signé luy defar diggante bi la luy defar penc bi la musoo fi signé luy yàq pénc bi munoo musoo fi signé li ñuy tuumal nit ah boo jàppee sa dund bi nii bés penc buñ la wanee la nga dundoon ak lan fi liggéey xamante ne dangay nekk raxatul baal dangay ngay nekk ku ku dal xel da nekk ku noppalu doo am la yo kon lii bu ci nit ki tënkoo day mucc musal nit ñi musal penc bi ba tax na fa la ñuy jaaree dugg ci xadis bi nga xamante ni saxaabi bu mag bi ko solo mooy abi darin algifaari radiallahu anhu nee na anna nabi sallallahu alayhi fi ma rawa an na abi darin nee na nañ xadis bi ci suñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam riwaaya bi nga xamante ne jële na ko ci suñu boroom tabaraka wa muy wax ci li nga xamante ne mooy tooñ tooñ mooy ngay jéggi àqu keneen walla ngay teg ci kaw nit la mu deful walla nga di salfaañe àqam ak yelleefam ba tax na yàlla mi nga xamante ne moo ñu bind bind suñu territoire àddina ba ñu war a bokk dund ko la koy ñoŋal la koy jekkal la koy taaral ak la koy rafetal mu daldi ñu wàcceel benn avertissement bu toll ni xadis ba ñu bëgg jàng ni te yonent bi baaxee ko xeet bi sallallahu alayhi wa sallam cheikh yonent bi daf ne yàlla tabaraka wa dane yaa ibaadi yaa ibaadi mboolem jaamu yàlla ngi ci biir ndax ñun ñépp jaamu yàlla lañ yaa ibaadi la yàlla wax waaw nida woote la tur bi nga xamante ne ñëpp ci bokk laaxaale amul sans exception amul keneen ku wuute woote bi woote bi ñëpp a ko war ko war a wuyu yàlla moo woote yaa ibaadi yéen samay jaam yéen samay jaam inni haramtul zulma man mi di seen boroom dama xaraamal tooñ ala nafsi ci sama jëmm ji cheikh yàlla tabaraka wa mooy wax ak jaamaam mi daf ñu woo bi ñëpp dem wuyu ko mu ne ñu inni man yàlla xaramtul zulma dama xaraamal tooñ dama xaraamal tooñ dama kaa xaraamal itlaaqan ak façon bu mu munti nekk moo xam da koy wax moo xam da nga koy jëf moo xam da koy bind moo xam da koy moo xam moo xam tooñ ak nu munti mel yàlla ne xaraamal naa ko ala nafsi ci sama jëmm ji duma leen tooñoon samay jaam wa ja'altuhu baynakum muharraman waaye ma jël tooñ def ko seen diggante mu nekk lu xaraam ci ni biir xaraamal naa tooñ ci sama jëmm ji man yàlla ngir may tooñ sama mbindaafoon waaye jël naa ko ma def ko lu xaraam seeni diggante yéen samay jaam yi kon nag avertissement bi mu ngi doog a wàcc mooy lan falaa tazaalamu falaa tazaalamu bu leen di tooñante bu leen di tooñante yàlla dafa xaramal tooñ ci jëmmam mu jël tooñ def ko lu xaraam suñu diggante mu avertir ñu ne ñu kon bu leen di tooñante bu góor di tooñ jabaram bu jabar di tooñ jëkkëram bu waajur di tooñ doomam waaye doom warul tooñ juram njiit warul tooñ ñamu jiite yow mi ñu jiite waroo tooñ ñala jiite ila axirihi hakaza pénc bi mun a nekk ci stable fekk tooñ amu fi fekk tooñ dañ na walla mu wàññeeku lool lool lool lool mooy andil istiqraar ak salaam lii mooy andi jàmm ju sax lii mooy andi la ñuy woowee la paix bi nga xamante ne jafewul bu ma tooñ bu ñu bokk tooñ ma samba bu ma sàmbak ma demb tooñ ñeneen ñi hakaza jàmm ne waaye fekk tooñaa ngi fi fekk tooñaa ngi fi ak anam buñ ko mën a defee xamal ne loolu day tax jàmm day tumuraanke loolu mun naa toxal jàmm ñàkk tooñante mooy toxal ay waaye tooñante mooy toxal jàmm kon ñuy bañ a tooñante ñuy bañ a jéggi wante àq nga bañ a jéggi sama àq bañ a salfaañe sama àq ak sama yelleef su ko defee nga am jàmm ma am jàmm mais bés boo yëggee maa ngi salfaañe say àq di jéggi say yelleef xamal ne maa lay tooñ bés boo ma ko defee tamit xamal ne yaa ngi may tooñ fekk loolu amul yaa ngi am jàmm maa ngi am jàmm ndax yàlla mi bind doomu aadama bind territoire bu muy dund di àddina mu xam règlement ya nga xamante ne mooy jagal àddina soosu mooy ñàkk tooñ moo tax mu avertir ñu mu wooñu yaa ibaadi samay jaami ñëpp babbeeku dem wuyu yàlla bu ñu àggee lan la ñu wax mu ne inni man yàlla xaramtul zulma ala nafsi araamal naa tooñ ci sama jëmm ji wa jaaltuhu baynakum muharraman waaye def naa ko mu doon lu si ni diggante yéen samay jaami kon maa ngi leen di avertir di leen yedd mooy falaata daalamu bu leen tooñante fala tadaalamu bu kenn di tooñ moroomam loolu buñ ko defee pénc bi daldi di jak pénc bi daldi di yiw mbokk gi <clears throat> ci ndimbalu technicien yi ñu àndal ci wàllum xarale gi tey Ali Imran TV lii lañ leen andil ngir ñu fas yéene koo wéttalante ak yéen saa ilina mawla <clears throat> jalla wa an yajcalana min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana amin ya rabbal alamin allahuma aminna fi awtaanina w aslih allahuma aimmatana wa wulata umuurina allahuma ihfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan aqulu ma tasmacuun baraka allahu li wa lakum fi alqur'ani alazim wa nafacani allahu wa iyakum bima fihi min alayati wa dikri alhakim aqulu ma tasmacuun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 Filafil dentelle til perlas brodé cocaïne brodé yu léger yu neex ci yaram ay brodé unisex ci dessin yu amul fenn abaya robb ak kolkasta xoolal ma yii xeetu brocart wax ci guétar guet wudin ay dara ak ay rideau yu rafet lool linge de corps parfum de classe yu jéggi dayoo ut

38 Sumaya bitik nekk fii ci Parcelles Assainies marché Dior boo koy seet si bett kaa ci gën. yow mosal ku ko mos dàkkamti kaay ma servir la waaw waaw li mu saf rek ku ko naan na ko xam yow mosal ku ko mos dàkkamtiku variété man sama dàkkal moom rek lay topp yow mosal ku ko mos dàkkamtiku variété ak pënc rek teraanga fii la fekk baax